leader la Sen TV mbokk yi xarit yi daleen ci seen émission euh, les grandes gueules ñëpp si bokk nga xam ne altine ba la ba samedi ni ki tey nag euh, samedi euh, équipe beneen moo fi teew ngir jéem a waxtaanee actualité de la semaine wala round-up d'actualité li ci gën a fës nag umpul kenn xam ngeen ne moo di essentiellement le scrutin présidentiel l'élection présidentielle bi nga xamante ni nii ci la ñu jëm ëllëg incha allah ci dimanche bi et vous savez mieux que campagne bi jeex na depuis euh, démb minuit et puis évidemment euh, on n'a plus le droit de faire de la propagande maintenant nag jàngat rek ak analyser sur la situation campagne bi fi jotagum jaar les derniers choix yi nga xam ne yenn ci ay candidats euh, wala yenn ci def nanu ko euh, évidemment waxtaane euh, itam lu jëm ci scrutin boobu organisation beeg yëpp daan ci ñëw waxtaane ak yenn ci ay secteurs yi nga xam ne xam ngeen ne toute la semaine ñun suñu rédaction def nañu ay gëstu ci secteur bu nekk attente yi muy def ci li nga xam ne moom moo di ci candidats yi ak le futur président de la République bokk na ci secteur de la de l'éducation daan ci ñëw également ce qu'on a oublié mooy il y la diaspora diaspora bi nag dafa yaatu muy Europe Afrique fépp évidemment euh, loolu itam daañu ko waxtaanee euh, ci biir euh, édition bi ndax souvent dañuy wax ne tendance yu njëkk diaspora bi ñooy soufflé mbir mi ñoom ñooy ñoom ñooy dicté mbir mi daan ci ñëw élection bi nu jëm itam ay la yoon ku ne xam ne ne contexte yeeg enjeu yi foo ko takk weesu na ko te it encore une fois on ne cesse de le rappeler c'est une élection bu ubbeeku lool bu nga xamante compétition la euh, bu dul yomb ci euh, candidat yi jongante en tout cas loolu yëpp daan ko waxtaanee alors sans plus tarder comme que dañu xaw a am léger retard dañu jox kàddu gi euh, ñi nga xam ne ñoo di sunu ay nattaango ñu fi am tous les samedis bokk na ci Saliou Joseph Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Saliou aman mbégte retrouver la ni ki tey samedi ci émission Grande Gueule nuyu suma waa dëkk Tiwaawan euh, tàmbalee ko ci njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour ñu gën fee yàgg loolu te gën a wér ñaan euh, ñu fàttewaale liggéeyu jumaay Tiwaawan ji mm-hmm. euh, ñu ngi ci participer waaye nit ci ñëpp gën a dugal seen loxo ngir ñu gën a mën a bi Serigne Babacar Sy Mansour naka noonu Massia Touba bi nga xamante ni ci faa bokk gën fee yàgg loolu te dina la. amiin njabootu Cheikh Khadim yëpp. nuyu bi nuyu clergé bi nuyu société civile bi nuyu kuje gi nuyu njiitu réew bi kuje gi sax mënatuñ ko wax ndax euh, fi mu toll dañu taxaw pour tànn njiitu réew. Mm-hmm. Euh, tey ñu dem ci tàmbali ci ba yegg ci fi muy lu am solo. Euh, muy nuyu waa Tivaouane xam naa ni ñoom Diop anglais ak Serigne Mbaye Diop. Mm-hmm. ñoom Serigne Dieng Diop ñu ngi toog di préparer. de la démocratie et qui boo mm-hmm. xoolee presque c'est c'est une ville déserte ah, oui. parce que les gens aiment la fête de la démocratie comme disait John Fitzgerald Kennedy mm-hmm. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla defal ñu jàmm nuyu suñu invité yi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp ak ñu kàdd bi ah, dañuy bàyyi ba élection yi jàll ñu tàbbi ci suñu activité yu rëy boobu ndog bi ni joxe ndog yi ñuy wàcc waaw ñëpp ciy participer ah, ah mais yow Bakrin ñu ko <laughs> Bakrin communication lañ ko ñoom lañ ko ñoom lañ ko pare <laughs> ba pare damay laaj ba pare damay laaj ci sas sas gars <laughs> ah maa ngi xaar damay fàttaliku daay daayra sas ayca eh, Ibrahima ñu ngi lay nuyu eh, nuyoo ak téléspectateur yi. ñu ngi lay fay bu baax Seydina Mohamed. grand Ibrahima Pouye la bool bool. waaw bool laa dëkk nag ndax balaa cosaanoo. ndax sama baay ku jur sama baay. Ngor Pouye la tudd. waaw te sanc na ñaari dëkk. benn dëkk bi ñuy wax Ndeeseer ci njaarim mhm. sama baay ñu ngi ko denc dëkk bi ñuy wax Ceebo. yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana firdawsi. sama maam Baye Seen mooy doon alamiru njaarim yi kër bu mag. ci ah. ndigalu Sëñ Abdou Rahman Mbàkke. kon yow am nga cër njaarim. waaw kon man bool laa bokk. jërëjëf. saa yar baatin nag. di ko santee nag Serigne Touba ak Serigne Saliou bi ñu ci boole. di nuyu suñu gan yi ah ñoom seen tur de. Eh, dinaa leen présenté nuyu leen rek dinaa leen présenté. kuy kon xamoo. nuyu leen dinaa leen présenté. Ah? de eh, man nag man nag man nag de. Ah. <laughs> damaa taxat de maa ngi jégalu. <laughs> jërëjëf jërëjëf. yàlla na yàlla defal barke. amiin amiin di Saliou Joseph. Eh. mi nga xam ne sëñ Tuubaa ak sëñ Mourtala mu sëñ Saliou lañ bokk. Ah. di suñu sëriñ ñun ñaar. te di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi loolu ti weer sëñ Mbay Si Mansour laay di kii dafay jàngu gi ak képp ku ñuy bàyyi xel mhm. di nuyu waa Scat Urbam surtout ak waa Grand gi ma cosaanoo juddoo xaar yàlla di ñaan yàlla may ñu saa su ne ñuy tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim bi nga may ma mu nuyu euh, Pape Modou Fall mhm. euh, di directeur général de l'emploi en même temps di mhm. suma kilifa ci yoonu murit ndax li ñu bokk maak moom suñ Tuubaa la di nuyu Alaaji Malick Gueye ca njantaan di nuyu aussi euh, Manar Sall ak képp ku ñuy bàyyi xel di ñaan yàlla suñu borom di defal taw féexub Serigne Saliou saa su ne di wax jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf mi alors ñu am mbégte lool dalal fii euh, ki nga xam ne moo di secretaire général également bu SAEMS El Hadj Malick Youm euh, moom it euh, bokk ci la société civile vous l'aurez compris daañu waxtaane attentes yi ci surtout le secteur de l'éducation nga xam Sénégal fan yi ñu jàll am nañ ci jafe-jafe yu rëy rëy El Hadj ñu ngi lay nuyu yow it mbégte dalal la ci sunu plateau di profiter ci occasion bi également. Mm-hmm. pour euh, wax. Euh, bon ramadan ramadan mu barak hmm. personnel bi yëpp parce que ñun moom comme ni ñuy wax rek. mais vous êtes d'attaque quoi ak koor gi fi mu toll man foogoon naa da ngeen ni loof mais yéen a ngi. ah mais xam nga koor gi euh, finalement soo xoolee ñëpp ko tàmm ah. <laughs> day mujj doon une habitude. absolument ah, parce que boo xoolee fii la journée de travail. am ñoo xam bu ñu ndekkee. Euh, peut-être souvent voilà donc day mujj nekk habitude quoi ah. <laughs> alors di nuyu sëñ bi. Hmm. ah hmm. sëñ bi diggante Tivaouane ak. Euh, ak euh, Touba moom laay tooñee ah, ne da ngaa bëgg di jaalwaati waawoon bu baax a baax ci vraiment wàññeeku maam Ousmane ah, nga xam ne moom papam déjà mooy wasile ñëpp presque. Mm, mm. maam Abdou Aziz baax mm. alors donc vraiment di ñaan. le marabout de la démocratie. exactement Maam Alaaji Abdou Aziz Dabakh. <laughs> c'est le il est toujours su intervenir lorsque toujours su intervenir lorsque la démocratie a subi des coups dans le Sénégal. donc euh, ñu koy siyaarewaat waa Tiwaawoon yëpp di ko siyaarewaat waa réew mi yëpp. te li mu waxoon man si. ba léegi dara du ci dañ parce que ba léegi de temps à autre dañ leen koy tagal di ko rappeler waa. assemblée nationale ah monsieur Euh, ak faute technique bi parce que en tant que homme de voilà. Ah xam bu ñu ñëw kii par courtoisie déjà. kii nag dañ ko bàyyi la de. ah non xam naa waaw <laughs> mais nag il faut tey moom mu. waaw reconnaître ne kii war na. non tey daanu na temps de. la diaspora euh, la diaspora. tey moom diaspora bi ñibbisi na. bon donc loolu lañ amoon. merci beaucoup jërëjëf Mouhamed. Souleymane Aliou Diallo on ne le présente plus moom it di yëngatu bu baax ci euh, les Sénégalais de la diaspora ou de l'extérieur en tout cas jiite ONG au travail. rabbil alamin bon comme ñu ko ñëpp defee ma tàmbali nuyu ñi ma sëqal waxtaan bi. Hmm. Euh, Serigne euh, Saliou Zak moom wax dëgg yàlla kanam bi yànja na te il est très pertinent. très mais équilibré. Ah, du wax ba nga jàpp ni ko fii la far. Hmm. Mm-hmm. il est très profond dans ses analyses très très équilibré parfois da ngay ne waa kii fu mu far jàpp ni fii la far nga dem ba kii mu balancé wu indi génne foo xam ne bon feneen la quoi donc ñu koy félicité di ko encouragé di ne bon soxla nañ mel ni yéen par rapport ak euh, euh, li ñuy def merci Ibrahima Pouy maa ngi jégalu de Marc <laughs> Serigne Saliou Mbacké fi nekk ni moom Marc borom Darou Mouhty alhamdulilah. maa ngi baal wax rek koor gi la rek waaw maa ngi jéegul te moom nangu naa moom. def nañ fi defaat fi ay. wallaay wallaay xam naa yor naa su ma ah. jublu sax maa ngi si numéro. <laughs> dëgg la c'est vrai ok. waaye ah, nag dama lu ma wax wax rek. man ah. moom daa mel ni yàlla toppee wu ma dara. <laughs> bon ñu nuyu. te yàlla bu ma yàlla toppee dara. yàlla bu ma yàlla toppee dara. maa ngi si waaw wax dëgg yàlla muy une identité remarquable. Euh, dans le cadre du syndicalisme particulièrement de l'enseignement secondaire moyen et kii wax dëgg daje si si liggéey bi ñuy ñuy échanger par rapport ak loolu très bien yow nag damay xëcc say nopp man ci nga dëkk damay xëcc say nopp <laughs> euh, naka bébé di ñaanal yàlla bébé yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér may ko tawféex di nuyu ñaari kap yi première dame deuxième dame ah. waa fële ak waa fii ñu ngi leen di ah. nuyu bu baax loolu kenn du ko wax si plateau <laughs> <laughs> deuxième dame dafa xew si Sénégal ah, vraiment may nuyu képp ku ma xam ne plateau bi très bien samay samay xarit samay mm. am di jàmm di defal mention spéciale sama yaay jërëjëf sunu yaay macha allah man vraiment ñu ngi lay nuyu muy sama yaay di sama xarit di sama wasiira di sama sëriñ eh. man moom rek laa am comme euh, vraiment wasiira mooy sama bakkan mm-hmm. mooy sama yitte mooy sama soxla sama yaay daal mooy sama xol vraiment mu ngi toog si télé bi maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla na euh, am wér-gu-yaram yàlla na am fan bu gudd yàlla na ko yàlla taxaw vraiment parce que dafa di waajur boo xam xam ne euh, bàyyil euh, wanewul ginnaaw njabootam. vraiment mu bëggal ma boppam moo koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal. c'est important merci waxtaan bi ñu fiy waxtaan nag yal na am njëriñ si askan bi. amiin alors euh, ku ne xam na ne euh, ak programme mu euh, des médias Sen TV les samedis wala grande gueule les lundis ba samedi c'est à 19 h la ñuy terminer moo tax on va essayer d'aller beaucoup plus vite et puis li ci li ci li ci ëpp solo mooy ñu wax leen ne que le groupe des médias mu xam Sen TV Zig FM également Tribune ak ActuNet mobilisé nañu. pour une couverture exceptionnelle de l'élection présidentielle et puis tàmmal nañ leen ko comme ni ñu koy defee euh, à chaque élection euh, bàyyi du ñu bàyyi benn gox du ñu bàyyi benn centre de vote en tout cas nos reporters sont euh, vraiment sur le terrain et partout au Sénégal hein pour vous faire vivre justement cette élection présidentielle bi nga xam ne également élection bu am am solo la et ce sera pour le Sénégal président sortant du bokk ñu war a fal beneen njiitu réew bu bees alors Salih Joseph en deux minutes table boo ñu doon defal un bilan sur la campagne ak naka ngay nattee les candidats yi nga xam ne euh, jamono ji ñu ngi noppalu di dallu seen kër di xaar bés bu rafet suba incha allah. la campagne électorale damay jàpp ni euh, ça s'est bien passé dans l'ensemble donte duma ma jug ci di ko wax ndax noonu la ñu tàggatee on a violenté le code électoral ci li nga xam ni moom la wax ci fan yu ñu war a battre campagne. Mm-hmm. on a violenté la constitution ci ni nga xam ne noonu lañ war a convoquer collège électoral fan yi nga xam ne moom la wax cela n'a pas été respecté et je vais toujours le dénoncer jusqu'à la dernière énergie ndax dañu tàggat ci fonk charte nday réew mi ak li koy tatagal muy loi électorale bi nga xam ni moo moo sës ci moom waaye ci campagne électorale bi ça s'est bien passé mmh. parce que c'est une situation inédite ñu nekk ci compétition électorale boo xam ni le président sortant n'est pas candidat deuxième chose ñu def ko ci à une période raccourcie oui. def ko tamit ci période bu ñu sóorul muy ñaari weeru koor yu daje mm-hmm. muy période de carême bi waa église bi suñu mbokk jàngu yi di dund. Mhm. ak itam koorug jullit yi nga xamante ni si miinuñu woon ñu ci di battre campagne. Euh, am na ay yëngu-yëngu yu ndaw yoo xamante ni ay télescopage la ci yenn partie politique yi ndax entité yoo xam ne dañu àndoon démb taqali ko. Mhm. ñu ngi mel ni waa kër waa taxawu Sénégal ak euh, ñi nga xam ni ñooy waa Pastef. ci seen manifestation yu bari ça c'était pressenti bien avant ci bi nga xam ni seen leaders yi ñu ngi tase yuuxoo di fa am ak yooyu noonu mënoon nañ ko xaar mhm. mais dans l'ensemble ci diir bu gàtt wane na ni boo farloo rek li nga bëgg def mun nga ko def tout à bi ñu farloo ñi ci ëpp wër nañ zone yoo xamante ni jàpp naa ni. Mhm. bu ñu amoon temps boobu noonu sax du ñu ko def. parce qu'ils ont employé la méthode ki a qui a permis au Sénégal de connaître la première alternance. muy bu mhm. président Abdoulaye Wade euh, la marche bleue bi nga xam ni caravane rek lañ doon def wër. candidat yu bari moom lañ def bu ñu ñëwee sur les points de chute waxtaan ak gars yi. Mhm. loolu lu am solo la mais aussi dafa am beneen aspect bu ci dolliku te gën di jëm kanam muy l' aspect digital. Mhm. ils ont beaucoup euh, travaillé là li nga xam ni moom la ñu tumuraankeel rek mooy ñu ci ëpp ci ñoom. ñu néew ci ñoom ñoo doon wax ci programme. Mhm. ñu néew ci ñoom ñoo doon wax ci ñoo doon wax ci programme. parce que dañu nemmeeku ci yenn candidat yi nga xam ni mën nañ ni ñoom ñoo gën fës. ñoom lañ gën di déglu ñoom lañ gën di topp d'ailleurs euh, le euh, journal de la campagne boo koy suivre audience bi bu ñu ñëwee dafay gën a bëri. par rapport au digital boo fa duggee aussi audience bi dafay gën a bëri donte y a des outils yoo xam ne mun na permettre nit mu booster une audience. Mm-hmm. mais li nga li nga mën a remarquer rek mooy ils sont suivis te bu ñu génnee masse populaire bi dafa leen topp. Euh, néew na ci ñoom ñoo xam ne dellu si nañ ci programme le programmes on a tendance à les les retrouver sur les plateaux télé. bu ñu invité ay nit. ñu bokk voilà pas ce temps bu ñu invité ay nit yu bokk ci ay coalition ñoom ñooy jël di dugg ci programme bi. beneen bi tamit c'est une erreur de au niveau de nous les journalistes. parce qu'on n'a pas su véritablement camper le débat des programmes mm-hmm. ak euh, politique yi nga xamante ni ñoo doon ñëw parce que politique yi ñu ci bari ci ñoom bu ñuy ñëw ci actualité la ñuy ñëw te actualité bi ñaaree li koy waral mooy xulo wala wax di dara faire de révélations et tout cela euh, li nga xam ne nag moom la ñuy capitaliser dëggantaan mooy ñoo xam ni jóg na nu ngir defar seen réew mu doon dix-neuf candidats yoo xam ni dañu jug jàpp ni dañu war a defar seen réew ci biir defar boobu noonu am ay ay kuréel yu ci booloo l'union des masses vers des objectifs am na ñoo xam ni ils se sont joints à des coalitions mais tey boo leen laajoon programme mu candidat boobu. du la ko wax parce que objectif moo leen fa indi. Mhm. boo xam ni c'est pour maintenir quelque chose ou des négociations de gage yu waral loolu. parce que quiconque di dem di ajouté wu dans une coalition war nga am programme boo xam ni gis nga ko jàngat nga ko mën nga ni lii de tey moo ma moo ma motivé ci ma ñëw ci nit ki mais les règlements de compte euh, daf ci bari daf ci bari ci classe politique bi ba tax ñu daw ci union. Euh, mooy que le Sénégal prime oui. que le Sénégal soit au devant et ah, au-dessus de nous tous et que les toutes, tous les objectifs riment vers la réalisation d'un Sénégal meilleur où la démocratie aura une bonne santé et la liberté des Sénégalais sera respectée. Très bien dit euh, Salou Joseph merci beaucoup alors euh, Ibrahima yow it euh, en deux minutes rek boo ñu doon defal bilan sur la campagne électorale euh, lan ngay euh, nattee candidat yi nga xam ne ñu ngi woon sur le terrain ay la déglu nañu leen ni ki tey nag ñoom ñëpp ñu ngi eh, dallu seen i kër ngir xaar suba incha allah. tamit ginnaaw campagne bi ñu def ñoom it ñu mën leen a tontu à travers les urnes. waaw ah, <coughs> euh, monsieur Cheikh Omar Barchi nee aw say ah, ñaareel. maa ngi ma madame Barchi nee ko ñu ngi koy lijjanti. moom yemul sax ci loolu li muy jënd su ma ko woon fii xam naa ñu ngi dem plateau. ayca moom yekk na ma musiba quoi Barchi maa ngi koy siyaar bu baax Cheikh Omar. <laughs> Eh. Seyna Mohamed. man je vois un billan positif concernant positif. la campagne. alhamdulilah. sur le plan de la paix sociale. que ñu bari lañ doon ragal. Mhm. fitna xeex. xuloo rayante. force de défense et de sécurité nar a am liggéey yooyu yëpp amu ci. te fitna bi fi ñu ko doon gën a séntoo sax moo ne ko diggante benn bokk yaakaar ak expassif mais dafa renversé wu ci diggante expassif ak xalifa euh, taxawu comme li Sëñ Saali wax rek. xamoon nañ lii moom mënut a ñàkk. Mm-hmm. mais dans l' ensemble. c'est ça. dire alhamdulilah rabbil alamin et ça donne espoir que ni demee. Mm-hmm. nous allons. que daañu def un et positif. Mm-hmm. te li may tàmm di wax rek yàlla mooy fal. noppi bu nekk président de kenn nekk président de la République Sénégal suñu borom bind na ko bu yàgg ca ësël. suba da koy confirmer rek. incha allah pas-pas bee fiy nekk rek ak sabablu bi. waaye ak yéene waaye yàlla suñu borom moom bind na. ci Sénégal yi mérito suba te mu war leen a jiite yàlla bind na ko ba noppi ndax yàlla moom képp li ñuy wax naan yàlla moom la nga mérito rek la lay jox. dëgg la bu subaa incha allahu rabbi yàlla dina jox ñun li nga xam ne ñun moom la ñu mérito ñun Sénégal. c'est te nag santaat yàlla lay doon parce que ay citoyens sénégalais à part entière lañ kenn su ñoom raxul. beneen bi ma ci xaw a kii rek mooy manquement yi ci am mooy ci côté programme bon wax na ko léegi benn côté. da dem dem benn instant sax dangay jàpp ne est-ce que du ñaar wala ñetti candidat ñoo ci am programme parce que presque tous les programmes dañoo duggalante. te boo xoolee presque mën naa wax ne copie collé am na ci programme yi. Mm. ndax boo xoolee tey benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom Amadou Ba jiite. à travers sa son programme mooy la continuité à travers les réalisations et la vision du président Macky Sall mais candidat yi mu gis ñu wax seen programme yëpp ku ci nekk laal nga ci benn pàcc boo xamante ne Benno Bokk Yaakaar. lancé na ko ci programme maa ngi déglu ba Bassirou Diomaye fay le candidat de Bassirou 2024 ñu koy posé question ci euh, nu mu tuddati bourse social familiale yi da koo rafetlu dafa ne vraiment bourse sociale Bassirou Diomaye Faye laa déglu mu wax ñu posé ko question mu ne da koy rafetlu trop parce que bourse sociale familiale yi vraiment nekk du lu am njëriñ trop donte trois mois yu nekk la ñu koy yokk vingt cinq la woon yokk nañ ko ba trente cinq mm-hmm. mu wax ci ay perspectives yu rafet donc c'est pour dire foo ay manquement rek lu baax am na ca te tey ji boo xoolee bu dee boo wax loolu ci bourse sociale familiale ça veut dire que c'est un programme d'une personne gis naa ci programme moom aussi ñu wax vice présidence moom Diomaye 24 vice président ku ne xamoon na ne andi woon na fi coow bañ ko njëkkee yëkkati ci jamono Abdoulaye Wade la ñëpp jàpp ne da koy jox doomam Karim Wade coow li jëm kaw ñu tegaat ko ci suuf kon bu fekkee andiwaat nañ ko rek damay jàpp ne bokk na ci loo xamante ne dañ ko aspiré waat ci ay programme yoo xam ne peut-être benn vision bu ñu exécuté wul tey bu ñu ñëwee dans l'ensemble mm-hmm. li may rek mooy cër gi ci sénégalais yi am mhm. candidats yi ñooy aspirer jiite Sénégal à travers la voix mhm. les cartes électeurs des citoyens sénégalais ma gis ne benn manquement bu ma gis lu jëm ci joomaay 2024 suivre naa campagne ba mu jeex tàkk gisuma ci benn yoon boo xam ne wane nañ ay image xam ne dem nañ seet suñu kër kilifa diini islam yi mhm. dem siyaari ji suñu sëriñ si saafoonte ak ñoom nuyonte ak ñoom même bu ñu nekkul ay sëriñ c'est des personnalités respectées honorables et qui pesent sur le plan confrérique religieux man jàpp naa ne tey bokkoon na ci worma ñu dem dëkk bu ñu munti teew même bu dee seen temps mayewu leen ko ak seen jiite seen jot ñu am yitte ñoom joom joomaay 24 dem seeti sëriñ sa nga xam ne ñoom la ñuy seeti ñoom la ñuy fekk seen i gox dem nuyu leen parce que loolu dafa bokk ci ñun mu nekk nag benn équation bu ma posé wu que ne yàgg naa toog ci plateau yi ñuy waxtaan naan dafa am benn système bu fi gars yi bëgg a andi boo xam ne dafay éradiquer suñu chef religieux yi éradiquer suñu sëriñ si ba boo xoolee lañ leen doon tàmbali di saaga ci plateau télé yi sax dafa bari woon tellement que ba andi woon def benn tolle ba maam sëñ Maaxi Ñas bu maam Baye Niass xalifa Niass di waxoon na fi ne maa ngi joxe sama xalaat waaye su ma paree biir ne ma ne dañ ma saaga ba ay saaga yoo ne andi woon nañ ko yàq ko ci sëñ Muntaxa et cetera man tey su ma demee ba gis ne tey candidat bi aspiré jiite Sénégal en 2024 dem na Tiwaawoon def fa meeting te jaarul siyaare sëñ Bay Si Mansour yàlla fi ak tiwér dem na Mbàkke def fa meeting jaarul siyaar sëriñ si fa ne dem siyaar sëñ sëñ taxa dem Njaasaan dem Canaba dafa am benn cëslaay benn socle boo xam ne. loolu mooy cëslaayub sëriñ Tuuba à quatre-vingt pour cent suñu diini islam si ñoom la tënku gannaaw nag duñu suñu yàlla duñu suñu yëlant ndax xul waxal allahu yàlla ahadun kenn la samat moom la ñëpp jublu. ku ne xam na ne yàlla amul day amul baay mooy mooy lépp ku ne xam na ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyaay wala sina amanu sayyidina rasulullah moo gën ci li yàlla bind waaye nag suñu borom daf ñoo fay tegal cheikhul xadim tegal ñu fi maam Limaamu Laay maam Baay Ñas et cetera et cetera kon tey su ma gisee ab candidat buy aspiré jiite Sénégal suba en 2024 mhm. te gisuma ku ma dem siyaare benn kër kilifa diine boo xam ne ñoom dañ leen di déglu man dama jàpp ne est-ce que ñoom bool nañ seen programme politique ci suñu kër kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañu am. te nag hmm. ber suñu kilifa diine yi. ku ci nekk am nga ci pas-pasu bopp waaye nag du tax ñun taalibe yi ñu ber suñu sëriñ si ñoom la am te ñoo ñu gënal lu ñu am. c'est important merci beaucoup Ibrahima Pouye El Hadj Malick euh, yaa ngi woon au cœur euh, évidemment di suivre le processus euh, lu yomb la ci ñun ñu laaj la bilan bi ngay def par rapport ak li fi jotagum génn muy campagne bi ak surtout nattukaay wi ci candidat yi nga xam ne ñoo doon dagaan baatu askan wi ci campagne bi jaare la ko foofu tey xaar sénégalais yi tontu leen ëllëg ci élection Euh, voilà donc euh, maa ngi lay gërëm Mohamed defe naa si jàngat bi mhm. damay tàmbale d'abord par benn étape bu am solo boo xam ne jàpp naa ne waruñu ko sauter c'est parce que balaa ñuy wax campagne dafa am lu ko jiitu mhm. et je pense que période boobu euh, li ma ci bëgg rek li tax ma insister c'est mhm. pour bëgg vraiment sargal la société civile sénégalaise parce que li tax ma ne tey yëg si nañ fii gannaaw yàlla nañ ko santé société civile sénégalaise. oui joué na ci rôle xooloon nañ par exemple que depuis décision bi président Macky Sall jëloon à la date du 3 euh, euh, février. Mhm. donc daf ñu dugal ci situation bu difficile. Mhm. alors donc loolu bi mu amee aussi je pense que sénégalais yëpp d'accord nañu ne alors euh, société civile dans son ensemble surtout les syndicats. ak les organisations socioprofessionnelles ak yenn plateformes yi ñoom ñoo jël combat boobu porté parce que nag ñoom koy comme li may tout le temps dafa am benn rôle bu am solo bu ñuy jouer ci réew mi. c'est le constat ils ont ils ont pris leur responsabilité. et puis exactement ba pare euh, dem ba tey am ci tey lu nga xam ne mën nañ jàpp ne su dee ne il y a eu le rétablissement du processus électoral mais société civile bi. ci la mhm. parce que ñëpp xam nañ ne combat yi ñu doon posé ak ni ñu tegee exigence bi ak ni ñu ci doon xeexee moom moo tax ba tey ñu am lii kon ñooñu foog ñu vraiment beral leen gërëm sant leen ci engagement bi sant aussi enseignants yi parce que j'ai vu que aussi si respect plan d'action yi taux de d'exécution ñun bi ñu amoon au niveau du secteur de l'éducation yeneen secteur yëpp mënuñ ko fa am d'ailleurs looloo taxoon soo xoolee la journée ville morte bi ñu defoon benn secteur le marché muy secteur u éducation yeneen secteurs yi dox fa heureusement aujourd'hui tey am nañ gain de cause ñuy féliciter enseignants féliciter tous les citoyens du Sénégal ñuy rappeler ne bi <laughs> fii lañ dugg nañu ñëw taxaw wax ni seen bopp et cetera et tey position de la constitution indiwaat nañ le processus électoral teg ko ci yoon ba tey ñu dem campagne mais est-ce que dañ ñu dégg ñun ñu duggaat ci biir di wax leneen donc loolu moo tax nit ñi war a maandu ñu comprendre ne dafa am lu nga xam ne dafa nekk au-dessus de toutes les considérations de chapelle mooy le pays c'est ce pays-là que nous avons moo ñu gën a ñor te bu amee problème ñun amul lenn lu ñuy bàyyi mais dañ si taxaw dem ba jeex mhm. léegi nag suñu ñëwee tey ci maanaam campagne bi bu ñu waxantee li fi am mooy. Hmm. seetlu nañ ne campagne bi dal na. dal na ànd na parce que boo ko comparé quand ak yeneen campagne nga xool d'autres années yi nga xam ne dafa nekkoon ay années électorales quand bi en termes de violence ak yooyu dëgg-dëgg bii euh, am na am na année yu mu tane des années électorales léegi nag jàngat bi pour man au lieu d'aller dans le sens de faire un peu des analyses ou peut-être da ngay prêter des intentions aux uns et aux autres. am na beneen analyse bu ma jàpp ne moo gën a scientifique. mooy bu ñu demee ci campagne bu dal te ñëpp ragaloon kon facteur yi d'apaisement yi lu tax mu dal. foofu la xalaat war a dem mais pas peut-être prêter des intentions au candidats kii jaarul fii wala kii dem na fii donc kii lii la bëgg kii parce que ça je pense que c'est des procès d'intention mais mun nañ xool lan mooy les facteurs d'apaisement mais facteurs d'apaisement yi mooy que classe politique bi dem nañ ba yëg si foo xam ne. point de non-retour la du ñu gisee la réaction des populations et de la société civile quand xam nañ ne fii loolu ñu bëgg du sotti moo tax tamit ils sont revenus à de meilleurs mais mm-hmm. maintenant actes yi ñu posé après tamit dafa doon ay actes yu am solo yu indi apaisement benn ci yooyu bokk na quand la libération des détenus politiques tout à kooku am na solo mm. parce que tey bu ñu xoolee les milliers de jeunes yi nekkoon aujourd'hui dans les prisons là mm-hmm. ay enseignants ay yeneen corporation tey bi ñu génnee ñu wax lu leer que ne ñoom defuñu dara ñu nekkoon kon loolu injustice notoire la boo xam ne bii liñ ko réparé indi na nekk na facteur d'apaisement mm. mais aussi nga dolli si quand même des prisonniers politiques aussi de certains partis yoo xam dañ leen jàppoon tëj leen mm-hmm. mais defe naa ne bu ñu demee ci campagne ba pare ñu génn bokk dina doon facteur d'apaisement parce que tey da lay ne aussi bu ñu absenté woon mm-hmm. am na tey foo xam ne yenn caravane yi bu ñu fa jaaree mm-hmm. dana indi ay soulèvement wala dinañ attaquante mais peut-être indi na apaisement mm-hmm. indi na tamit euh, nit ñi am dal et puis ñoom acteurs politiques yi aussi am na fee yu ma gis yu ñu doon def mm-hmm. yu nu ma rafetlu mooy damay xool su su ñu amee caravane bu daje ak morom mi nga gis ñu saafonte ñu saafonte c'est très <laughs> important uh-huh. Sénégal loolu la xam mm-hmm. nga gis le dirigeant bii day wàcc. gis naa ko par exemple avec Mamadou Aliou Dia mu def ko avec. Euh, avec euh, avec Diomaye. Mhm. def na ko aussi. ak Khalifa ak Khalifa donc mm bien. loolu déjà ñoom bu ñu ko defee en tant que les responsables. Mm -hmm. alors seen seen ay militants dañuy suivre ñu mhm. xam ne dynamique boobu nag. parce que Sénégal comme ni ñuy wax ñu ñëpp ko bokk. benn réew la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. donc loolu je pense que moom moo indi apaisement bi. maintenant dans examen bi. des programmes. moi je pense que fii moom. am na nag lu ci sooxe <laughs> mooy soo jëlee d' abord période campagne bi dafa gàtt. Uh-huh, te loolu aussi amul woon beneen solution. c'est parce que aussi comme jalgati nañ ki bi il fallait trouver le moyen de. raccourcir les délais. alors si biir raccourcissement délai boobu aussi bu ñu xoolee thématique yi. ni ñu ko waroon aborder. Mhm. demeewul noonu. très bien et loolu impacté na. et surtout nag ci biir thématique yooyu. Mhm. am na ci benn boo xam ne moom. Mhm. muy secteur éducation. dinañ ci ñëw. franchement jàpp naa ne. <laughs> Eh, eh. ni ko gars yi abordé. xaw na alors sooxe na loolu. dina ñëw ci ëpp problème am na ah, mooy moom mooy. dinañ ci ñëw moom mooy feebar bi sax. secteur <laughs> éducation ñu le temps dinañ ñëw ci éducation bi. c'est ça euh, ñu ñëw ci euh, euh, Souleymane Aliou Diallo yow it sa lecture ah une première lecture on va dire ci sa njàngat évidemment ci. campagne bi bilan bi ngay def si on peut le dire comme ça et puis natt natt bi ngay def euh, ñi nga xam ne euh, ñoo di candidats yi nekkoon sur le terrain euh, tey xaar nag tontu Sénégalais yi ëllëg ci dimanche bi Euh, d'une façon très ramassée avec une logique technique boo xam ne si la ñu war a mën a dem boo su ma dégluwee li ñu fi ramassé dafa am ay fait yoo xam ne dafa am dafa constant par rapport ak processus bi am euh, man si suñu sorti bi mujj j'avais même demandé aux politiques de demander pardon à la population sénégalaise parce que mm-hmm. amoon na fi benn mm-hmm. pression bu rëy tey suñu toogee si plateau bi dine suba la élection ba ci biir semaine bi sax am na ñoo xam ne yaakaaru ñoo <laughs> donc euh, nañ ko sante yàlla parce que ah. processus électoral Sénégal mosul demee nii koor gi li ñu si wax yëpp on cautionne mais dafa am ay analyse yoo xam ne nañ ko jël ñu jël ay référence par rapport ak monde bi gis nga du par parloo mais li Pastef dund ñeenti at yi jot man su ma koy méngale dama koy méngale li ANC dund biir Afrique du Sud en matière de pression d'emprisonnement de de d'assassinat de loolu yëpp bu ñu ko capitaliser boo xoolee ANC ni ñu ko kii woon ba ANC fi mu mbujj tey yoon Pastef rek la may jox Pastef la may jox mooy ni que parti la boo xam ne parti la boo xam ne opprimé nañ ko fii. ak AFP. Euh, euh, ANC c'était l'apartheid. waaw ñu bàyyi ko mu daaneel politique. aussi les choses. non euh, Pouy. apartheid problème raciste la racisme la woon. politique raciale la politique la wala ah, xamul non non dama ne wa yeggali c'était la politique racisme et puis on euh, c'est au cœur de l'apartheid. Oui, mais je te dis, c'est similaire. Je ne dis pas que c'est la même chose. En termes bah, je... Allez-y, allez-y. Maa ngi ñëw. Allez-y, allez-y. Tu as ton opinion, tu laisses. Non, allez-y, allez-y. Je te dis, c'est similaire. xam nga lu tax c'est similaire. c'était un gouvernement avec une population plus ou moins raciale. yóbbu mu ko ci contexte boobu xam nga ci ban contexte laa wax. arrestation arbitraire. Mhm. libération sporadique. négociation en prison. Mhm. le candidat bafoué. Nelson Mandela noonu lañ ko doon def. Mhm. ba léegi du euh, de propagande on n'est pas là aussi pour les oui oui mais waaw contradiction bi laay bañ mun na andi leneen non non dinaa arrêté dinaa ko bàyyi mu développer mais tamit dama man. waaw mais celui qui a la parole nañ ko bàyyi bi. ak africain bi ñoom ñoo amoon problème. problème racisme la woon. kon déggoo ko Pouy. mais mais mais tu sur le plan politique oui mais bu fekkee da nga ko jël sur le plan politique. oui l'apartheid c'était très bien. dara moi dama lay wax waxu un gouvernement. néew ma la racial new ma la blanc néew ma la noir dama la ne un gouvernement d'Afrique du Sud contre un parti politique ANC. man foofu yow métaphore nga utiliser rek. léegi nag boo bëggee def indi yeneen considération mën nañ dem foofu dama la ne. non non uh-huh. li mu dund ces deux dernières années. Mm-hmm. c'est un gouvernement du Sénégal. contre un parti politique loolu mënoo ko dindi. bien sûr boo xam ne y a eu des il y a eu euh, une suppression euh, de d'un parti politique suspendu ils sont allés dans la clandestinité ñefe ba tey ñu rétablir leen ci seen droit mhm. loolu mënoo ko dindi kenn mënu ko dindi c'est vrai loolu muy benn ñaar tu parles de candidature mhm. man dafa am benn affaire boo xam ne c'était constant et d'ailleurs ñun à un moment donné loolu moo loolu moo ñu yëkkati mhm. dans le monde et particulièrement dans les grandes démocraties quand un candidat est reconnu et accepté par les garants de la Constitution aux États-Unis. Mm -hmm. Si tu es candidat reconnu, c'est le secret service qui prend ta sécurité et qui t'accompagne. Tu es protégé. Bassirou Diomaye Faye, candidat reconnu par le Conseil constitutionnel, est resté en prison presque pendant cinq jours au moment où ses autres challengers étaient sur le terrain en train de faire leur campagne. Lors à dénoncer. Mhm. Lors c'était injuste. Mm Deuxième chose, tu me parles par rapport à la religion de Touba et de euh, na lenn loo xam ne lu fondamental la nañ koy éviter gis nga l' aspect politique suñ ko dépassionné wul suñ ko touché si yenn fibre yi rek day kii on connaît Ousmane Sonko très religieux. on connaît Bassirou Diomaye fay très religieux qui qui qui prend référence par rapport à ses parents gis nga suñu commencé euh, di cukk yenn yi wala di ne kii jaar na fii ki la jaarul fee rek. Mm. ñu ngi indi division sectaire te division sectaire yooyu ngi koy éviter par rapport à la vie politique. la religion buñ ko immiscer trop. Mais attends, je te, ra je te renvoie. Le président Macky Sall n'avait pas dit ici les marabouts ce sont des simples citoyens. Tey rëccuwu ko. Mm-hmm. Tey rëccuwu ko. Mhm. donc bu ñu heureusement parce que dafa am wala coalition Diomaye dafa def une des des déclarations contre no marabouts. Mhm. qu'on ne fait pas qu'on ne qu'on ne de procès d'intention par rapport heureusement la campagne ça s'est très bien passé on était tous inquiets. Mhm. alhamdulilahi rabbil alamin on va vers une élection apaisée nous avons un ministre de l'intérieur très conscient léegi nag si lenn laay mën a ñëw par rapport ak programme yi parce que loolu dama bëgg ñu éviter ko gis euh, la, la les coalitions euh, euh, Khalifa euh, président Diomaye président nañu jàpp benn affaire gis na euh, Pouy Ibrahima Pouy fi ñu jëm nii c'est un lendemain incertain en termes de résultat les uns proclament le premier tour d'autres disent qu'on va aller au deuxième tour allah kulli alim gis nga fii koo fi ngañ na tey nga saaga ko tey ci guddi jàppal ni lundi matin say kilifa dañ dem toog yi waxtaan ak moom parce que si les ces élections là vont au deuxième tour ils vont devoir se discuter ils vont devoir discuter et je vais aller plus loin hmm. bu leen fàtte ni que il y a beaucoup de rapprochement il y a beaucoup d'amitié entre le PASTEF et le Taxawu Ndakaaru ce sont des gens probablement les militants qui se chiffonnent mais les dirigeants se respectent beaucoup et se parlent ça il faut tenir compte de cela rapport ak programme yi moi j'ai si programme yi ñu jot ñun autre Africa par rapport ak li ñu doon suñu suñu su su suñu combat yi ñuy mën par rapport ak Sénégal par rapport ak Afrique rayonnement wu Afrique sur la table c'est la question monétaire ci biir campagne bi la question monétaire est venue oui. et nous dans la lutte contre l'immigration irrégulière on a toujours dit de dénoncer euh, notre arrimage entre le, le CFA et l'euro mm. ban programme moo ko fi indi dine lool war na et tey on peut dire nous nous sommes en phase avec le mm, programme euh, de Diomaye président sur deux choses il faut oser c'est-à-dire il y a soit on continue par rapport ak li fi doon am ñu koy méttitlu wala ñu créer rupture bi nga xam ne mooy indi changement ak ay alternative pour améliorer vers des essors de développement lenn nag mooy li si am Ibrahima Pouye dafa am loo ah, je retire Ibrahima Pouye non je retire Ibrahima <laughs> Pouye donc Sénégal yu nekk nañu déglu pour ma daaneel pour ma pour ñu daaneel mmh. euh, su ñuy wax waxu âge candidature ñaari ngoom le journaliste Pape Djibril Pape Djibril Fall. Bassirou génération boobu ak génération wu Khalifa sàll Idrissa Seck. Amadou Ba Amadou génération léegi nag man benn fenn rek laa leen di daggee. Giorgia Meloni Italie. moroomu Bassirou Diomaye Faye la. Pedro Sanchez Espagne moroomu Bassirou Diomaye Faye la. ak Ibrahima Pape Djibril Fall. Rishi Sunak moroomu Bassirou Diomaye Faye la. Sanchez wax naa ko sànq Gabriel Attal bi bu France moromu ba donc nañu bàyyi waxu si on ne fait pas confiance à cette jeunesse. à cette leadership de cette jeunesse. si continuité la ñu dem te continuité boobu tey ci moo ñu indil tey lu ñu nekk di dund nii. c'est ça la réalité des choses. très bien merci beaucoup mm. alors ci ñëw euh, damay dem euh, euh, très rapidement ci Saliou Joseph avant ñuy dem pose ñu entamer deuxième poñ bi muy surtout lecture bu ñu mën a def sur des positions yi nga xam ne jot nañ ci. Euh, lu yàggul dara muy euh, ci heure yi nga xam ne ci lañu génn bokk na ci la position du parti démocratique sénégalais bi nga xam ne euh, am na ñu mu bett am na ñu mu bettul parce que le parti démocratique sénégalais qui soutient la coalition Diomaye am na ñu ne scission la am na benn pàcc bu nga xam ne ñoo dem am benn pàcc bu nga xam te ne nii beneen pàcc bi Idrissa Seck loolu yëpp bëgg naa ñu jàngat ko et surtout la décision du président de la coalition Euh, gëm sa bopp muy Bougane bi ñu doon xaar parce que moom rek a fi desoon moom it joxe na position que libéré na ay militants am ku neex na votel mais surtout surtout mi ngi joxe rendez-vous au deuxième tour. naka nga ñuy analyser loolu très rapidement. ci bala ñu ci sori. Mhm. Euh, le corps enseignant. Mhm. man man personnellement sama conviction mooy jàng ak jàngale. secteur de la santé. justice ak défense kenn waru leen boole ci politique loolu laa gëm. Mm-hmm. et waruñu am revendication ndax lépp dafa war a daje ci ñoom parce que réew boo ko bëggee rey am na réew yu am pétrole am na réew yu am gaz mais ils ne sont pas des pays développés am na réew yu amul pétrole amuñu gaz nekk en voie de développement par exemple kore da koy mën a citer xam nga lan la naan boo ko rayee ci réew ray nga réew ma mooy le système éducatif il faut un système éducatif parfait performant mu commencé ci kiy jàngale qu'il soit dans le cadre dans les conditions yoo xamante ni si du am problème mu avancement du am problème mu intégration du am problème mu ay ay alignement par rapport aux indemnités cadre bi xale yi war a jàngi defar ko ci lu wér a bu ko defee mhm. coowal politique ak yu baree bari warul leen ci di tudd et je le déplore d'ailleurs qu'on parle des enseignants de tel parti et de tel parti mhm. en toute sincérité euh, bu nu ñëwee nag ci wàllu alliance yi nga xam ne am nañ ko surtout bu PDS bi nga xamante ni ils sont partis se joindre à la coalition Diomaye c'est acceptable mhm. da nga koy nangu parce que le, euh, la coalition Diomaye ou le partie Pastef a une partie de la trajectoire du PDS bu dee da ngay xool ci wàllu politique parce que parti bi pour mu taxaw ci xeex ak jàmmarloo ak le régime de Senghor le régime de wadd moo ko le régime de Diouf moo ko tax mu taxaw et ce sont des démocrates jusqu'à la moelle parce que tey journalistes yu bari yoo xam ni ak ay chroniqueurs yu baree bari je peux les appeler ainsi qui tiraient sur euh, le PDS bi PDS jëlee benn décision aujourd'hui tey ñoom ñëpp ils se sont pliés d'autres même dañu faf muuma mënatuñ wax parce qu'ils ont longtemps tiré sur le PDS parce que PDS a engagé un combat légal et légitime ci lu baree baree bari avant les élections et bi nga xamante ni si ñëw nañu y a combien de candidats yoo xam ni mën nañ ne ay ay libéraux lañu tu parles de Mohamed Boun Abdallah Dionne il a été le premier ministre de Macky salle je pense 2013 ba 2018 euh, période yooyu la Macky Sall doon wax je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression et je n'ai qu'une seule opposition c'est le PDS secouer le PDS martelé leen seen candidat mu teg ko ñetti ati kaso juróom benn weer et c'était Mohamed Boun Abdallah Dionne qui était le chef du gouvernement qui pouvait remplacer le ministre de la justice en cas de démission de fait donc c'était lui le chef du gouvernement le chef du ministre de la justice mmh. Mmh. boo xoolee digganteem ak Idrissa Seck Idrissa lorsqu'il a quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar il il a craché le feu chez Wade et et le ci mun naa ko wax parce que responsable moral yi la visé directement kon lan la ñu mun a def répéter la fameuse phrase de Abdoulaye Wade bi ñu defee intercoalition bi bu ñu bàyyi di taqali li nga xam ni moo ñu boole ngir njariñu démocratie pour être cohérent et pour être cohérent aussi ci li ngay xeex muy rétablir la justice et la paix parmi les candidats gis nga ci candidat boo xamante ni si taxawaay boobu la am et comme il l'a écrit nee na le candidat les candidats l'ont appelé il s'est entretenu avec Khalifa Sall mais Khalifa Sall est un socialiste te lorsque maintenant que des unions se fassent au la des idéaux maanaam ànd yoo xam ne dafay romb les doctrines politiques dafa am tamit benn fibre boo xamante ni si moom la ñuy xool ci biir boo xam ni moom mooy motiver lii parce que tey moo ngi koy wax sànq quiconque se joigne à une coalition dafa war a am motivation boo xam ni dafay découler ci programme bi donc tu peux dire que le PDS dafa boole li ko neex ak li ko naqari lépp mm. parce que une dame comme Mimi bu jàmmarlu woon ak ñoom démb ci position yu baree bari tey mu ngi foofu noonu mais dañu jël li leen neex ak li leen naqari yépp teg ko de côté daal di dem léegi la réponse de dire ou mm-hmm. c'est des réponses politiques waaye fan nga koy jëlee fan déggee wax jooju mm-hmm. ban média bu ñu la waxee ni la média wu sunu confrère Madiambal tu sais que média boobu noonu Madiambal il travaille dans la communication de Amadou Ba nëbbu ko c'est son ami la communication. mais quelqu'un comme Abdou Thiam. waaw waaw mais j'y vais damay dem damay ñëw. damay gën a def déclaration pour soutenir Amadou Ba. effectivement oui la base aussi est-ce que est-ce que maîtriser nañu leen. ci ci euh, mouvance boobu PDS bëgg euh, ci jàppale coalition Diomaye. damay ñëw si foofu. bu dee les départs yi nga xam ne Abdou Thiam ak le député woon def nañu ko le Pastef. depuis Fara Ndiaye. Euh, père de Sebet Ndiaye. bi nga xam ne Abdoulaye Wade bi mu amee deuxième mandat sa maire magistrate Mireille Ndiaye bokkoon na ci ñu ko installé. dafa kiite le PDS rejoindre ji le régime euh, nga dem Serigne Diop Sadakhta a fait la même chose il a presque xëcc. ossature PDS bi nga demaatee ba ci kanam tuuti tu as vu les Ousmane dans le gouvernement élargi c'était la même chose bi ñu demee ba ci élection yu 2019 yi après que le président Wade que Bougane a récité ce que Wade avait récité mais seule différence euh, président Wade waxul woon deuxième tour dañu mën ngeen a wooteel ku leen neex ba mu des président Macky Sall ak Madické Niang mm-hmm. donc ñoom ñu wëlbati ko dem rejoindre ji Macky cela veut dire que le PDS a toujours vécu ya lay photo départ ya mooy départ ya du yóbbu base ba parce que élection bu amaatee conquête de base boobu noonu da koy réaffirmer donc il faut comprendre que euh, loolu ñu naan sukk terewut a yóbbaale say euh, terewut a yóbbaale say oom. oom du booy leex looloo dal député yi nga xamante ni ñoo jógee PDS dem la base reste intacte tey jii bu suba bu élection amee. incha allah rabi tu vas voir la base qu'ils avaient mhm. est ce que dafa dafa leen di rester fidèle wala dafay wuyu ji ñi nga xam ne moo ci nekk. pour ñëw nag c'est la position de Bougane. Euh, rapidement voilà c'est une position normale pour un leader qui a une clairvoyance et nga am jaar-jaar boo am ñi nga xam ne ay candidats lañ ak yow position bi nga xamante ni moom nga amee il ne faut pas omettre la provocation ce qui a valu les candidats dits spoliés bañ yegg si fii donc c'est un politique et quand on parle de politique on fait référence à la science c'est une science ça s'apprend dafa am nooy analyser le contexte ak taxawaay boo ci am ce que je sur le point euh, auquel je ne suis pas d'accord moo Karim Wade ñoo ko bokk nee nañ élection yi kenn mënu ko gagner au premier tour ñu dem deuxième tour mm-hmm. les bonne communication loolu laaj. mi ngoog dañuy dem marquer une courte pause jëli ji une petite page de publicité puis revenir sur le plateau continuer le de et ce sera euh, tout à bienvenue chez vous. retour sur le plateau de votre émission les grandes gueules ñëpp si euh, bokk ñu ngi doon tollu ci euh, euh, choix yi nga xam ne mooy les choix de dernière minute yu ñu jot ci parti démocratique sénégalais ak ci le li nga xam ne mooy ces derniers choix yi ñu gis ci ces personnalités là wala ces coalitions là. bon man li ma ci gis rek bokk na ci loo xam ne njàngat ko xam ne ñoom ci seen bopp am nañ ko te ils ont très bien réfléchi. parce que boo seetloo Karim Wade ak Bougane Gueye Dany bokk nañ ci ñi gën a ci affaire yi te boo koy wax nag da nga koy nangu rek ndax bu fekkente ne tey le cas de ak le PDS ils ont eu près de ci élection yu mujj yi. am nañu électorat mille voix foo ko fëgg mu yëngatu surtout que dafa am benn influence boo xam ne dañ ko am Touba. donc tey dañ leen di nangul ñoom dañ koy nangul moom Karim réflexion mais je crois que dafa am benn crédibilité boo xam ne ko desee manqué. ak benn parce que légitimité dafa bokk ci loo xam ne boo xësee sëqat ñëpp ciy ànd mais tey am na benn divergence bu rëy bu am biir PDS. Mhm. division bu extraordinaire parce que avant que wu rek na fi kilifa yoo xam ne biir PDS lañ bokk nekk ay conseil municipal ñooy ay conseil seen i commune dañoo def déclaration ne am Ba la ñuy àndal gis nañ nañ sax ne maam Diarra Fam bi mu waxee ne day ànd ak Ba sax gars yi ñu ngi wax naan est ce que taaluñu këram. Hmm. c' est pour dire que kon division am na. mot d'ordre bi nga ne moom la gars yi doon toppee président Abdoulaye Wade ak Karim Wade dagg na ci élection yi. Hmm. et ànd ak euh, Pastef ba sur 2024 wala beneen candidat bu dul pouvoir bi je crois que foofu moo leen doon jox crédibilité. te mënuñu woon ñàkk def def loolu. suñ defoon leen lu dëppook loolu. Hmm, ñu dem PDS mu ngi ñàkk électorat mu ngi ñàkk crédibilité aux yeux des Sénégalais parce que bi mooy deuxième élection boo xam ne PDS amu ko candidat mhm. et je crois que bi Karim Wade demee ba léegi président Abdoulaye Wade isolé wu je crois que diggante boobu biir PDS am na ay kàngam yoo xam ne ay borom xam-xam lañu am nañu charisme bi am nañu notoriété politique bi je crois que waroon nañoo créer ay leader benn bañaar ba ñetti leader yoo xam ne suñu gisul Karim Wade mhm. PDS bu vacant vide di xaar koo xam ne fee mu nekk xamuñu ndax kaso la ci moom xamuñu ndax dañ ko teree ñëw muy envoyé kay communiqué sa pose problème. Mm-hmm. donc crédibilité boobu ça pose problème. Mm-hmm. man dama toog barki dem ak sama benn grand man ne ko Karim Wade bu fekkente ne dara gàllankooru ko digganteem ak justice terewuñ ko ñib si Sénégal. 72 heures avant ñuy clôturer campagne bi day jël avion ñëpp ci Sénégal. war na mën a ñëw woote ci de. comme mais dama ne 72 heures avant ñu tëj campagne bi Karim Wade ne cëpp Sénégal carte gi jaxasoo. Mhm. jëmmam physique mais Karim Wade a wax nga gis mënoo mënut a def audio nga gis WhatsApp nga gis ko mënut a avec les nouvelles technologies de l' information de la communication ku bëgg a communiquer yaa ngi communiquer. d' accord légitimité mi la rek mu ànd ak Diomaye 2024 day faj mer. Oh. c' normal parce que mënoo accuser Amadou Ba. Ah, ah faj mer nga ko jàppee du pouvoir si faj mer la. Mhm. mënoo. Singhili justement foofu dafa am solo est-ce que coalition ak choix ànd ak benn candidat ci war war na mën a tëngu ci faj mer et il y a trois semaines on disait que ne on avait le temps on avait le temps de président tànn pas mer folli wala folli comme parce que diw neexuma wala déggoo makkele mais looloo fi am il n'est pas le seul coalition yi ngi gis yëpp yu ci bari quatre-vingt pour cent faj mer la mhm. dama toog fii barke dem na la yàlla benn bokk yaakaar mais yàlla benn bokk yaakaar bis mhm. bu boo xam ne moo ànd ak Diomaye 2024 boo jëlee Mimi jël Habib Sy boo jëlee Pape Samba Mboup bi fi ñëw barki dem nga jël euh, Moustapha Guirassy mais boo jëlee ñi nga xam ne dañoo jóge ci système bi nga xam ne moom lañ doon xeex tey jii ñoom ñoo coiffé la coalition. très bien Diomaye 2024 mënoo ko génnee tàggali ak. coalition benn bokk yaakaar c'est le même système. Mmh. les mêmes moo tax ma ne leen barki dem bi ñuy wax tamit ne bu kenn wax ci Mm-hmm. ante système ak ay système bu bees ak loolu man je crois que amatul mm-hmm. fi mu nekk mooy trouver une solution pour accéder au pouvoir ñaare ba mooy amu ci kenn koo xam ne man ci li ma lu ci bari du intérêt réew mi mm-hmm. du mën ñëpp mais am na si seen intérêt la ñuy préserver moo tax ñu négocier ji kon Karim Wade tey ànd ak beneen parti wala beneen coalition bu dul la coalition au pouvoir moo nekkoon njëriñam moo nekkoon avantage am pour gën a am crédibilité si kaw Bougane Bougane am na lu ko dal mooy comme les tey dal na ko mais tey boo xoolee avantage yu Bougane il a fait combien de fois le tour du Sénégal. Mm-hmm. am na ay base yoo xam ne au fin fond du Sénégal fa ne am na fa base décision bi mu jël ma jàpp ne c'est une décision stratégique. Mm-hmm. très stratégique d' abord soulagé na famille politique am bi ànd ak moom. xamal leen ne comme que premier tour lañ jëm na ku nekk dem ak sa xel ak sa sago mais préciser avec le candidat de l' opposition bi mm-hmm. ngeen sentir seen bopp. su fekkee taxe bi ma liir moom moo ko bind mais même bu joxee orientation bi man gëm naa ne en âme conscience am na ci ñoo xam ne ñu ngi biir gëm sa bopp di ay militant am di ay responsable am seen orientation politique danañ ko jëmale ci la cadre daaw au pouvoir danañ ko fa jëmale parce que lu tax quand on prend le profil des candidats tey am na ñoo xam ne bu ñu génnee l' expérience l' le charisme la compétence et cetera am na ñoo xam ne mun nañoo situé wu ci le candidat au pouvoir am na ñoo xam ne foo fekkente changement par ou par B ku ci nekk da ngay analyser am nañu sañ-sañ dem wéeru fa neex moo tax ma ne la biir gëm sa bopp dafa am benn divergence di bu ci yem après ku ci nekk yaa def buggaan nag loolu la xamoon et loolu na ci jox cër say militants mais nag deuxième tour aussi mm-hmm. deuxième tour mun na bañ am ci élection présidentielle très bien bu fekkee nag deuxième tour am na su boobaa nag damaa jàpp ne ay négociation nag mooy am parce que candidat yu bari yoo xool tey actuellement ñu ne teg jàpp seen jàmbur. Hmm. ils sont en train d'attendre le deuxième tour là. où ce crucial. et le dernier virage. pouvoir trouver des négociations. soit aspirées. à être dans un gouvernement ou bien aspirer à avoir un poste. mais jàpp naa ne bi nga xam ne Bougane jël na ko pour l'instant. Hmm. c'est une décision boo xam ne ça soulage sa famille politique euh, il ne reste pas beaucoup temps bëgg naa nga ñëw ci li nga noté su fekkee am na mais euh, boo boo daanelee ñu attaque directement euh, ci la place de l'école de l'éducation dans les programmes ak attentes yi. en tout cas bu dee dañuy revenir si filu émission. oui si vous voulez si vous voulez c'est-à-dire mm-hmm. que déjà par rapport à l'analyse. Mm-hmm. ah tey soo xoolee alliance yi fi am yépp depuis quelque temps. Hmm. nekkatul ay alliance yu ñu mën a tuddee alliance idéologique. Hmm. contre loolu lu ñu tuddee alliance d'intérêt. et de contre alliance idéologique moom jeex na Sénégal. Hmm. lan moo am alliance d'intérêt alliance d'intérêt mooy lan ku nekk da ngay xool fan la intérêt sa mouvement politique nekk. wala sa intérêt parti politique nekk. mais c'est pas parce que kii ak kii ñoo bokk idéologie nga dem donc xool ne fa la intérêt bi ne nga jàppale ko tey boo jëlee euh, premier cas bi nga posé sànq. muy cas wu PDS. Mm. déjà loolu mooy règle générale bi ah. Mm. alliance yëpp c'est comme ça. Mm. alors léegi nga jël un peu ce qui s'est passé avec le PDS. bon avec le PDS déjà du lu bees ah gisoon nañ bii passé en 2019. c'était ça. le mot d'ordre est arrivé encore tardivement à la dernière minute. alors bii aussi même chose pourquoi parce que déjà il faut que qu'aussi dans l'analyse nga remonter un peu en dehors parce que commission d'enquête parlementaire ba nga xam ne PDS moo ko créé woon fële mhm. au niveau de l'Assemblée ak combat ba ñu fa mën a ñoom pour qu'on puisse rediscuter ou arrêter le processus électoral et ñoom quelque part ñoo porté woon le projet de report des élections mais kooku dafa am impact parce que tey report élection boobu ñoom ñu bëggoon quand ils disent que seen candidat bi en tout cas dañ ko recalé alors loolu tey am na lu mu def même benn njeexital boo xam si biir seen ay rang si boppam mais am na fa effet négatif alors nga génnaat ci loolu ñëw tey ñoom ñu jóge si loolu ñëw war a jël une décision claire mm-hmm. ñu bàyyiwaat temps boobu yëpp mu écoulé muy benn facteur bloquant bu leen di sonal mais le facteur bloquant bi nga xam ne mun nañu wax ne tey mooy li nga xam ne dafa toppee PDS mbooro mhm. mooy tamit candidat boo xam ne candidat bi nekkul ci réew mi te du fi ñëw ah, mais kooku tamit sa way hmm. ban réew la am mhm. addina bi yëpp wërngal këpp fan ngay musee gis benn candidat boo xam ne bii maanaam nit ñi dañuy toog fii di ko xaar boobu ba léegi mënut a ñëw te ne moom dafa bëgg a falu ci moom réew hmm. kooku mënut a ne ça aussi c' est un handicap bu ñu doon traîner et enfin aussi je pense que choix bi ñu mujjee def nii mm, mm. lu tax mu am sission ñi jaar fii ñi jaar fële c' était prévisible c'est parce que un parti politique day am fu nga xam ne bu fa demee ba toll fa mm. dafa war a am benn leadership bu am doole mm-hmm. buy taxaw di continuer di orienter la base base bi topp leen mais suñu demee ba loolu nekkatu fii mm-hmm. mais kooku day indi problème moo tax nga gis défection yi mm-hmm. quant à euh, Bougane avec ce qu'on gëm sa bopp moi je pense que pour man su may analyser objectivement mm-hmm. erreur la mm-hmm. parce que erreur la mooy tey lan mooy xew suba dañu ne mooy li ëpp solo ci réew mi mooy c'est le dialogue entre ces dix-neuf candidats ak seen réew ñoom dix-huit millions de Sénégalais mm-hmm. kon su boobaa jàpp nañ ne képp ku nekk ci réew mi te nekk fi leader da nga war a am baat ci dialogue boobu am baat mooy nga am mouvement politique wala nga am parti politique munoo ne doo si jël position neutralité baaxul mhm. loolu la ñuy wax ne donc euh, chaise vide la politique de la chaise vide ne paye pas mhm. baaxul donc tey moom bu amee mouvement ba amoon nombre de voix yi mu amoon ci élection yi passé ak état se positionne il est il est toujours dans le processus parce que il s'est il a donné rendez-vous peut-être au deuxième tour mais c'est pourquoi maa analyser na qu'il y aura mais foofu laa est stratégie aussi politique d'accord mais stratégie bi pour man mhm. xam nga nekk sa point de vue ngay joxe man pour man stratégie bi na mat mhm. parce que dañu ne toute demi-mesure est une contre-mesure mhm. tey mën nañ dem élection suba kan moo xam ce qui sortira des urnes kenn xamu ko donc élection dañu ne politique euh, day xëy rek wasin te du ëmb. Mm. kon kenn xamul suba. nga yeewu ñu ne la ok résultat yi favorable à Massamba ou à demba au premier tour. et su boobaa kon historiquement dañuy bind ne moom. ak tout ce qu'il représente et tout il n'a pas pu se positionner donc loolu pour man dafa waroon jël courage am mu assumer mu xool mu positionner mu d'accord et peut-être mu def ses calculs aussi. Mm. ba xam. qu'est-ce qui peut marcher pour lui mais pour man le fait de dire euh, à tous ces militants et cetera ku nekk na def lu mu xam kooku si si si premier tour je pense que day indi problème c'est ça. donc fallait fallait qu'il aille au-delà de ce choix-là oh, et je pense que les autres partis l'ont fait mm-hmm. moom il aurait parce que jusque-là il était dans le processus di jël position di am yu muy wax di am nu muy taxawee ak nu muy defee je pense que loolu mooy logique mu nekk ci logique boobu tey Euh, bon ça m'a un peu surpris d'ailleurs parce que man bi may lii les informations euh, keroog damay gis que moom plutôt dafa jëloon position. Mhm. mais je sais pas comme ni ngeen ko waxee je pense que. Mhm. c'est ça la bonne information. très bien la place de l'école di nga ñëw di nga ñëw dama bëgg ñu ñu ñu kii parce que on la place de l'école pour aller vite. comme ni ñu defee voilà ki bi. peut-être pour revenir très rapidement je dirais que tey euh, li ma seetlu rek mooy. programme yi ni ñu leen doon xaare pour ñu jël en charge école amee wuñ ko noonu. parce que école. boo xoolee tey fii ci Sénégal moom laa jàpp ne. mooy secteur bi gën a feebar. école dafa feebar feebar feebar ba nit ñi mënuñ comprendre que ne ah phénomène yi xew nii yëpp école bee feebar. maanaam bu ñu nee mbëkk mi. c'est parce que école bee feebar xale yi xamuñu fu ñu jëm suñu nee tey. taux de maanaam. Euh, insécurité bi. insécurité bu bëri bi. école bi la. parce que boy bu ñu amul fu ñu dem foog ñu am lu ñuy def. pour régler seen ay problèmes. bu ñu nee léegi agression yi dafa bëri. école ba la parce que école moom la américain yi tuddee ascenseur social. maanaam mais ñun ñuy toog fii nii yëpp tey. bon système boo ko doon nattaatle lan moo ñu fi école la ñu fi mm-hmm. benn bi la. Mm-hmm. te teg si école boobu. ka nekk ca mbooy ga ki nekk ci dëkk bi ki ñëpp mhm. ñoom ñoo ci war a am accès pour que mu mën a def transformation bi mu mën a def ci mhm. capital humain bi ba ñu am ci dara alors donc tey moo tax ma ne mhm. programme yi ñun xóotaay biñ ci doon xaar gisuñu ko moo tax ñun xamoon nañ ko dañu teel a déjà travailler ci benn chemin comme jàpp nañ ne école bi dafa feebar ba yaram yépp ay metti <laughs> tey boo ñëwee nga ne tànk bi la <laughs> ñu indee pikiir pikiir fii bi yeneen yaram yeneen parti yi gën a metti <laughs> finalement ñun dañu def li ñuy wax un bilan général dañu def benn lël travailler sur un bilan général mm-hmm. bilan boobu lan lañ def diagnostic mm-hmm. ñu ne léegi comme màgget gu feebar la nañ ko diagnostiquer ñu seet yaram bi fii metti yëpp ñu diagnostiquer d'abord mm-hmm. ce qu'on appelle les politiques éducatives diagnostic bu xóot diagnostic boobu wane ne boo seetee depuis indépendance ba tey politique éducative yi ñu fi mës teg yépp joxaguñu satisfaction parce que ba léegi amuñu produit final bi ñu soxla te pourtant soo xoolee tey si ay nattukaay yu bëri nga jël le taux brut de scolarisation nga jël le taux brut de pré-scolarisation maanaam le TBS le TBPS ah ay éléments de mesure la yoo xam boo leen jëlee dajo déjà bu dee préscolarisation amoo 20 pour cent ci réew c'est dangereux nga dem taux brut de scolarisation mu tourner autour de 73 pour cent quelque chose comme 80 mmh. donc loolu tamit catastrophe nga jël également mënuma détailler tout ça mais boo jëlee même mmh. quand élément bu am solo mm. muy le li le le l'indice de mm. capital humain mooy li banque mondiale di natte. Mhm. Sénégal moo yor ci yi gën a néew. parce que zéro virgule quelque maintenant attente bi lan ngay xaar ci. futur président alors donc loolu yëpp boo ko dajalee moo lay wan ne. kon école bi comme programme yi dañ feebar environnement scolaire bi dafa feebar. nga am déficit de personnel. Hmm. am aussi statu enseignant yi toppatoo wu ñu wen ni mu waree comme ni mu doon waxee moom. Hmm. tey nga gis décisionnaire yi nu ñu sonnee nga gis ñeneen ak ñeneen ñu nekkoon kon ñun dafa laajoon ñu indi li ñuy wax maanaam benn pacte pacte boobu ñun ñu ngi ko tuddee. Hmm. quand le pacte pour la transformation de mmh. l'éducation mooy la proposition que vous avez voilà mmh. alors loolu pour que euh, tey acteurs politiques yi engagé wu mmh. te loolu day indi solution solution mooy foo ko ñu soppi programme yi programme yi mënta dem parce que méngoowul ak ñun suñu environnement ak suñu culture alors foo ko ñu soppi kàllaama bi ñuy jàngale ah parce que gisagoo ci àddina réew moo xam ne dañu ne la kii dafa am koom te kàllaama gi ñu fay jàngalee kàllaama gu ñu jéggaan yi amul kon ñu soppi kàllaama yi bokk na ci tamit ñu seetaan alam bi alam bi mooy environnement scolaire bi aussi dañ koy soppi tey mënoo am 5000 abris provisoires am ay écoles yoo nga xam ne nii xale yi ci biti la ñuy jànge ak yooyu bëgg a def performance mënta ne faaw tamit ñu boole ci nag toppatoo situation jàngalekat yi ba deg leen si situation boo xam ne bii tey mooy gën di situation c'est loolu bu ñu ko deful mm. école bi du mën a dem nga boole si nga boole si vraiment ce qu'on appelle aussi allègement des programmes mm-hmm. donc yooyu yëpp benn programme la bu ñu liggéey ñun tëgg ko mm-hmm. moom la ñu tuddee quand même le pacte pour la transformation de l'éducation heureusement que vous oui. avez proposé euh, euh, pour kii ñëw <laughs> voilà, <laughs> voilà. donc programme boobu mu ngi ñu téye et mm-hmm. ñun jàpp nañ ne pacte boobu muy PETEF pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation. Mmh. tant que liggéeyuñ si. Mm. du dem parce Très que tey bu ñu la fi may jeexale rek. oui suñ la nee université. xam nga ñaata sur deux sur cent mille personnes mille cinq cent vingt nit au Sénégal ñooy dem université. Mmh. alors que la moyenne mondiale dañu ne réew moo gis. sur cent mille personnes faut qu'il y ait au moins deux mille personnes qui accèdent à l'enseignement supérieur Sénégal ba indépendance ba tey ñun mënaguñ matal deux mille yooyu nga jël enseignement technique et professionnel tey taux bi mu ngi nekk près de six virgule trois à sept pour cent donc si li fi nekk si njàngaan yëpp six virgule trois sept pour cent nga dellu université ak étudiants yi ñuy wax dañu bëri yëpp vingt quatre pour cent ñoom ñoo ciy def les matière scientifiques. très bien donc. li ci des yëpp. c'est ay matérialité très bien donc voici des problèmes. am na ah, yu bëri bëri bëri yoo xam ne xëy na dafa alors ñun en tout cas indi nañ ci solution pour que réew mi mën ci. bénéficier voilà te loolu moo ci am solo kuy dénoncer ak yi ñaawlu day fekk yow it nga teg ci kaw taal bi li nga proposé ngir ñu mën la euh, évidemment euh, xettali wala génne la ci jafe-jafe yi nga ne Souleymane am na loo bëgg jàngat sur le plan politique avant ñu ñëw également la place de la diaspora ñoom it ak attentes ci euh, le futur président bon je pense qu'ils ont assez développé hein ku si nekk ñëw na ak benn aperçu boo xam ne bon d'abord le problème de Bougane problème PDS euh, problème enseignement bi euh, je vous demanderai monsieur Faye de vous rapprocher de euh, nu mu tudd Moustapha Sarré ah le directeur de de l'école du parti euh, que Daaray euh, Daaray Cheikh Anta qui est une personne très équilibrée et que presque présentation bi ngay def nii yëpp euh, il a fait une présentation sur les perspectives de l'enseignement et la formation. Et pourquoi il devrait de lui? Parce que j'ai vu et entendu beaucoup de cohérence ah. euh, par rapport ak Moustapha Sarré li mu doon développé ah. et c'est un technicien il est le directeur de l'école du parti qui donc jàpp naa ni. Quel parti? de, de Pastef ah Pastef euh, euh, de la coalition Diomaye il y eu beaucoup de cohérence surtout par rapport ak les. mais nag programme. Mmh. j'ai vu leur programme. Mmh. c'est ñu ci analyse programme. en profondeur surtout la damay wax ne globalement. Euh, am na ay similitudes. Mmh. am na ay similitudes yu mmh. bëri. Mmh. mais xam nga ñun jàngat bi ñu def mais. c'est à partir du secteur. ñun bi ñuy exercer. la dem. def diagnostic bi en profondeur. c'est ça donc vous avez fait un diagnostic général quoi. ok oui oui évidemment j'ai vu les programmes des partis. et je reconnais que ñoom ils ont fait un effort. c'est ça c'est parce qu'il des enseignants chevronnés Birame Khoudia que tu. très bien bon des enseignants. voilà jëmal nga xool comment ngeen kii peut-être y a des choses sur lesquelles vous et c'est ça a été très intéressant man quand j'ai échangé avec euh, euh, Moustapha Orienté qui est en. en vraiment en verbe avec euh, le système d'enseignement revenant sur les questions politiques entre les hommes mm-hmm. moi je suis vraiment j'ai été un peu dessous très déçu même le fait ni que Bougane ne participe pas à ces élections avec tous les efforts qu'il a fait gëmoon naa ni tey bu demoon ci élections yi du génn si euh, peloton de tête parce que il a beaucoup il s'est beaucoup investi il a beaucoup travaillé sur le terrain ñun ñëpp xam nañ ko mais je dis que que ce n'est que partie remise il y a d'autres élections qui vont venir bu mu décourager ne remobiliser waat ses forces et man nag fenn laay wax fay mhm, mhm, mhm. Euh, Youm euh, bi ñu toll nii Ouais. Nañu bàyyi les population avec leur conscience. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une majorité qui sa qui, qui se dégage. Il y a deux tendances qui sont là. Soit c'est une rupture totale, radicale par rapport ak li fi am. incarné par une soit la continuité de li ñu doon dund am nañu si ñu mu neex am nañu si ñu mu naqari ñaari yooyu ñoo fi am ñaari camps yi ñoo fi am léegi nag bugaan période bii bu toogee ne sama njaboot wax dëgg yàlla man affaire yi leeragul sama bopp dama bëgg a dem leen ngeen yi ngeen xool su gënee leeri man sama xel gën a toog mën naa leen wax fan laa jëm. Mhm. kooku mën nañ ko ko nangul parce que deuxième tour yi. su nekkee deuxième tour am na. deuxième tour yu am waxtaan sànq wax naan na fi. fii ku fi xas kenn ku fi saaga kenn ku fi beddi kenn. si ay fan yu néew di nga dem taxaw buntu këram pour waxtaan ak moom. loolu muy loo xam ne par rapport ak position Bougane. je le félicite je l' encourage il a eu la sagesse bi mu waree dugg si yenn tumulte di dafa ne lenn. man Karim Wade ma jaaxal. kaaw Karim Wade daf ma jaaxal. et y une chose est importante ñu wax ko fii si plateau bi. c' la position officielle de. Parti démocratique sénégalais. démb ils étaient si meeting de clôture u mmh. coalition Diomaye président ils ont pris parole là-bas ils ont fait lecture de leur communiqué donc officiellement le PDS est avec la coalition Diomaye président lool mooy ni am mmh. parce que Mayoro Faye mu ngi woon foofu et il a fait une déclaration officielle donc képp ku bokk PDS officiellement foofu nga war a lim léegi nag quant à des sorties sporadiques man fële laay far sur loolu laay far en matière d'élection scission am tout le temps mais ce les gens prennent comme constant, comme par rapport à ce parti, le PDS, euh, mon père Wade, euh, Wade fils, ils se sont alignés par rapport au programme de Diomaye président et ils l'ont la diaspora léegi nag dafa am lenn loo xam ne dama ko bëggoon dolli par rapport ak li ñuy wax la session PDS mhm. par rapport ak li ñu doon wax mhm. gis nga man je suis rassuré su ma gisee ay cadre Mimi Touré luñ ko mun ne xalab xalab xalab jigéen bu mën góor la te Mimi Touré fu mu bokk nga am plus-value parce que am na expérience internationale am na expérience gouvernement xam na politique te elle est stratége nga ñëw Habib Sy kilifa la elle il a été à la présidence xam présidence nu muy fonctionner Moustapha Guirassy loo ko munti waxal waxal am na teeyu gouvernement génn na fi si gouvernement am gestion pour kii Abdourahmane fu mu nekk foofu war nga xam ni am na benn cooki boo xam ne bu fa amee en terme d'éthique et de déontologie foofu duñ ko kii donc composition wu ñooñu man am na quelque part foo xam ne boo may wax waxu radicalisme su nekkee ñooñu ñoo tafu bassiru Diomaye je me dis que parce que am na lenn lu Sonko lu mu lu am solo lu mu wax bu fi kenn yaakaar ñoo bokk si man pour ñu séddoo réew mi Mm-hmm. on donnera la place qu'il faut à l'homme qu'il faut fii pécoo amu fi et donc je pense que loolu tey sénégalais yi nga xam ne soxla nañu équilibre soxla nañu ramener la confiance par rapport à la jeunesse sunu alalu réew fan lañ koy jox ñan lañ koy jox loolu defe naa ni pas bu important la et déclaration bu am solo la boo xam ne su Sonko wax na ko devant ses ak devant ses militants et devant le peuple sénégalais et defe naa loolu mooy garant léegi nag beneen affaire bi ñuy wax waxu mentor mm-hmm. nañu bàyyi waxu mentor mentor bi mooy Amadou Ba fii la dem ba Tiwaawan ñu woo ko nee ko répondre Dakar kan la dem répondre ji du mantooram ngeen bëgg a jël Bassirou Diomaye parce que ko choisir na ko ñu bëgg ko teg leneen kon loolu ay contradiction la bu duñ suñ suuxee si loolu li li ruqale moo sukki kii kon foofu bu ñu fa dugg sax ñun ce qu'on veut aujourd'hui c'est un président engagé un président crédible un président qui aime le Sénégal et qui le qui, qui veut développer le Sénégal et par rapport au peuple sénégalais au lendemain du 24 il se met de la jeunesse sénégalaise par rapport au développement et la place du Sénégal de la diaspora pour terminer oui la par rapport à lui si la société civile qui a été brave par rapport à la diaspora qui a été déclencheur diaspora bi ñoo njëkk a indi réflexion parce que diaspora gis nga tout le temps suñu kii ñu may wax waxu violence su diaspora man dama ko condamné bi ñu fi dalee si consulat yi am na sax ñoo xam ne dañ ma mere par rapport ak ji dañ ma ne mais yow ñun ñu ngi xeex ngi ñuy condamné effectivement les institutions du ñu dal si kaw institution mais gis fii li nga xam ne tey am na rupture ba internationale ba ñenn ñi mën a bañ a def troisième mandat diaspora bi bu takkuwul woon bu xeexul woon bu amul woon sens d'orientation et de mooy l'injustice à partir de l'extérieur démontrer ni que boo nekkee noot ngeen waa réew mi bu nekkee noot ngeen waa réew mi ci biir réew mi idéologiquement da xam nan nga koy jëlee parce que loolu c'était un déterminant par rapport à la démocratie de ce pays-là parce que à un moment donné la liberté d'expression était bafouée fii boo buggee wax li ngay xalaat sax da nga koy ragal il a fallu que ñu xaar suñu ay njiit au niveau de Bruxelles fii Union européenne di décider ñu xaar leen euh, New auprès des Nations Unies wala ñu xaar leen Paris jàmbaarloo ak ñoom moo tax ñu xam ne ah du Sénégal rek doomu Sénégal yi ñu ngi un peu partout dans le monde te bu ñu sal était important léegi nag si vote bi ñuy dem nii je pense que les premières tendances yi am si vote sax daanaka bitim réew nga koy xamee. et xam nga sénégalais de diaspora sénégalais de l'extérieur lan moo si am solo. Hmm. gis nga de l'extérieur mais ça c'est sur le plan politique man attente yi diaspora yi ba di xaar ci sunu ay candidats ak le futur président parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de problèmes avec les sénégalais euh, qui sont euh, qui résident euh, en Europe en Afrique leaders nga xam te ñoo war a falu. la première des choses une gestion transparente et saine de nos derniers publics. l'équité par rapport à no derniers publics ñun mënuñu nekk bitim réew di rey suñu bopp di rey suñu bopp di xar suñu bopp léeg-léeg nga dégg sa jarbaat wala sa jawam wala sa lii ñu ngi koy teg si saret pour yóbbu ko dispensaire wala pour kii et dispensaire boobu il faut mu def dix wala douze kilomètres muy door a egg pour mën a dem jël xaalis xaalisam diaspora bi loolu lay xaar diaspora bi li muy gis bitim réew lu baax mu mën a am suñu réew diaspora bi nga lan lay lan lay xeex terre bi ñu lay fayeeku mille deux cent milliards te ñu xam ne eggul sa six cent milliards ñu loolu dox diaspora bi lan lay xam mu am un gouvernement sain boo xam ne développement des sénégalais ñun mi nekk bitim réew fu ñu gisee lu baax loo xam ne pour réew mi la ñu mën ci participer mais lenn la ñu dàq li nga xam ne lépp lu baax si réew mi ñu jël ko yóbbu ko bitim réew ñun ñu nekk bitim réew tekki ñu ñu dara bitim réew et buñ ñuy noot buñ ñuy toroxal buñ ñuy euh, rendi amul kenn koo xam ne day taxaw ñun daal ay dëpp yi rek la ñuy ki wala ñëw di ñu jaale. Hmm. fu ñu laale do combien de doomu sénégalais actuellement ñu ngi ci kaso bi. combien de doomu sénégalais ñu ngi nelaw porte la chapelle mbëkk bi ñuy wax nii doomu sénégalais yi ñaata ñoo siy génn gouvernement wu Sénégal tout dernièrement lan la si def. di ko dund foofu tey da ngay bëgg a am da ngay bëgg a am rendez-vous. pour defar regroupation familiale pour sa pour sa njaboot da ngay toog at ñaari at lekk-lekk rendi ba ci say këyit yi nga amoon sax day dem ba day caduc te tellement que da ngay am problème mu rendez nga ñëw fii ci consulat yi ak ambassade yi gouvernement wu Sénégal amuñu hauteur convoqué consulat yi ne leen attention ñii lii réglé leen problème mu rendez-vous réglé leen problème mu visa yi. donc on attend nga soxla passeport bitim réew da ngay toog ñaari at sa passeport day périmé ñaari at léeg-léeg pour ñu mën la renouveler da ngay jugee dëkk dëkk pour nga ñëw pour ñu réglé la sa passeport. donc il faudrait que mutation yooyu ñuy wax sénégalais de la diaspora ñu gën a bàyyi xel encore si ñoom par rapport ak yeneen nga xam na parce que mënuñu nekk bitim réew di investir fii di yónnee li ñuy yónnee ba pare suñu waxee rek ñu ñuy ne non vous avez douze députés qui représentent la diaspora non douze députés mënuñu représenté diaspora bi diaspora bi investissement bi ñu bëgg li ñuy escroquer jaspora bi si seen alalu bopp dafa bëri fii donc donc su ma la déggee aussi euh, ñu daaneel foofu avant may dem Saliou Joseph terminé mooy euh, il y a de ces programmes yi nga xam ne bu ñu koy jël ci ja ci les Sénégalais de la diaspora dañ leen ci war a boole parce que ñoom ñoo gën a xam seeni jafe-jafe ak la ñuy dund euh, ca biti réew. a toujours prôné en plus. en plus des des des députés qui votent parce qu'ils sont minoritaires. Mhm. te députés yi nañu bàyyi di leen jël parti parce que suñu demee loi bu amee biir assemblée nationale du xool bii la ñoom seen parti fi mu aligné wu la ñu aligné wu. parti bu leen newee votel contre. comme ça ne député yi un conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur. Mhm. qui ne serait pas budgétivore qui accompagne le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la coopération internationale. Mhm. dans le cadre des contrats dans le cadre des investissements et dans le cadre de la politique étrangère tant diplomatique que économique que sociale que culturelle alors Salou Joseph ku nekk une minute appel bi ñuy lancé euh, <laughs> l'endroit des Sénégalais par rapport ak suba incha allah par rapport ak euh, scrutin bi du jëm en une minute nag ku nekk euh, journée de fête hmm. un jour où la personne le citoyen dafay dem jox décision réewam dafay dem pour tànn ki mu war a jox réewam ci juróomi at mu war a jiite armée bi war a di tabb di présider conseil supérieur de la magistrature lu magistrature lu jëm ci wàllu justice war a yor koom-koomu réew mi war a yor wér yaramu réew mi war a yor euh, jàng jàngalem réew mi mhm. dem beeg dikk bu réew mi mhm. war yor léppi réew mi te ñu am lu ci dolliku muy exploitation des ressources naturelles ñu war a am Sénégal foo xam ni daf foo war a jëm boo xamante ni si nous some à une période charnière de notre histoire Absolument. donc am vague boo xam ni dafay dem àla kulli xaal am na ñoo xam ne dañuy dem même si c'est le candidat de la continuité qui est au pouvoir même s'il y alternance am ñoo xam ni dañuy dem mm-hmm. donc on très fort mentalement, très posé, avec les comportements idoines d'un citoyen pour exercer ce devoir citoyen de choisir un bon candidat, mais dans la paix et dans la stabilité. te ñaan ki nga xam ni moom la yàlla di jiital mu doon ku jik sunu réew te am yërmande ndax njiit dafa war a bëri yërmande c'est en tout cas euh, ce que nous souhaitons euh, très rapidement Ibrahima appel ah bon l'endroit des Sénégalais par rapport sax bi may wax par rapport di tudd ay Mimi Touré wala ma ñuy laaj rek je ne parle pas d'expérience ndax ku xam na ne ñi ñi nekk foofu yëpp am na expérience mais quand je parlais je parle d'idéologie systématique absolument on nous a fait croire Uh, Ndeye euh, Washington nee na dafa jógee Washington dem ba New York pour renouveler passeport am ci ay jafe-jafe yu ñuy dund. Ah voilà y' a a des a des choses qu'on qu'on doit améliorer oui. par rapport à ce qu'on avait vendu. Mhm. un nouveau système. dégg la éradiquer système. et maintenant on ne plus reconnaître le système et l'antisystème. man cadre boobu laa xamee bu fekkee ma loo xam rek xam naa ne ñu foofu yëpp. c'est important c'est les expérimentés man je ne parle pas dans le cadre politique je parle dans le cadre de la vision et de qu'on nous wàllu appel. rapidement en 30 li nga njëkk wax ci wàllu passeport yi man moom laa bëggoon tàmbalee. xëy na avec la valise diplomatique. ñu xaw na xaw mm-hmm. mais diaspora li ñu gën a soxla mooy ñu leen di taxaw au sein de dëkk yi nga xam ne dëkk pays étranger yi nekk. dañuy yàgg di rey ay sénégalais ah. dañuy yàgg di menacer ay sénégalais di leen di agressé mais doo gis benn autorité bu taxawu. askan wi parce que mm. man def naa fa. bu dee benn fan ah ñaari fan ñetti ah fan. moodu moodu jëna moo xam ci ban dëkk. Mm. mais difficulté moom moom ça persiste. te njëriñ la am parce que plus de milliards koy dugal ci réew mi te ñoom ñooy dundal askan wi. war nañ leen gën a bàyyi xel boole ci demain élection la. journée fête la comme tout le monde le dit. cinq secondes waaw de la république. pas par défaut pas par maire pas par ji nous sommes actuellement contenu local. Mhm. qui est d'élire un président local. mais actuellement le Sénégal est un contenu international. à travers le pétrole et le gaz. et il nous faut. des personnes yoo xam ne ressource képp kuy vote daal votel ak sa conscience xam ne bu ëllëgee doon ne def naa. vote par défaut wala vote par trahison. bon le message bi may joxe. c'est mm-hmm. message bu may joxe au nom de toute la société civile d'abord. Mm-hmm. pour combat bi nga xam ne ne woon nañ ko ba tey ñu am ci ndam di sant yàlla di wax nag ne jeexagul jeexagul parce que dañuy woo acteurs politiques yépp cette fois-ci ak militants yi. ñu dem suba voté si jàmm ak salaam man jàmm laay woote apaisement parce que en fait na ñëpp xam ne jàmm fu mu amul leneen du fa am mm-hmm. jàmm mooy war a am d'abord leneen soo a mun a am donc c'est un appel à la paix à l'apaisement nit ñëpp nañu nekk ñun ñëpp dal mm-hmm. ñu dépassionné ñëpp dal ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk mm-hmm. kenn mënu ko xar ñaar léegi nag le deuxième appel quand même c'est un appel à la transparence parce que tamit nag pour que jàmm am day am ay intrant yu ñëw yu war a conjugué wu pour que ñu mën a accéder à la paix et intrants yooyu bokk na ci la transparence mhm. des élections suba bu leeree ci xelu ñëpp ci boppu ñëpp jàpp naa ne ñëpp nangu ko te transparence boobu acteurs yi mooy ñan mhm. bokk na ci administration publique mhm. bi yor la responsabilité d'organiser ces élections surtout ministère de l'intérieur ak euh, direction général des élections mais bokk na ci aussi quand Euh, ñi nga xam ne ñooy les observateurs. Mmh. yi fi ñëw suba. quand ñu déployé wu fépp pour mën a mmh. teg seen bët ci lépp mu leer mais bokk na ci presse bi mmh. presse bi aussi je lance un appel. absolument pour que bi mu mat mu leer. lu leer te mu leer seen bopp te mu am firnde. merci beaucoup <laughs> ci xam naa temps bi tënk nañu. Uh-huh. Euh, message rek euh, temps bi tënk nañu. message sama xarit euh, Rokhaya Kandji mu ngi may suivre Eva Diallo sama sama sama sœur sama sama féete. ak Laxat sama buur géwél sa kooku moom mu ngi may nuyoo man tam maa ngi koy delloo nuyoo. donc message de paix. Mm-hmm. je pense que comme moom ni mu ko waxee on attend une transparence bu ñu toog nag ba minuit. Mm-hmm. nga toog nga def élection jour élection ba minuit ay courant coupé pendant deux heures de temps. Hmm. yooyu si ay affaire tappale la bokk. yooyu bu mu fi am. donc nañuy euh, fexe. Hmm. ñu am une élection boo xam ne élection bu paisible la nit yi dem voter si calme te ñenn ñi nañu bàyyi di yee fitna. que ñenn ñi bu ñu créer ñenn ñi bu ñu créer ay faux incidents. parce que si yooyu la mën a taalee yenn yi. et donc nit yi teel a xëy. teel a dem voté 19 heures ñu dépouillé au plus tard ñuy wax 23 heures dañu xam les premières tendances ñu kii vraiment. merci beaucoup. mais c'est ça le rôle du journaliste. merci beaucoup merci Saliou Joseph merci monsieur Souleymane Aliou merci El Hadj Malick ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko waxee ñoom temps bi xoj na ñu ci dolli dara demain incha allah daañu euh, tànn euh, beneen njiitu réew bu bees incha allah rabbi euh, ñun daal lu ñuy wax mooy lépp lu nga xamante ni nii wala képp koo xamante ni nii yaa gën ci Sénégal yaa na suñu borom teg la nga gérer Sénégal ànd kook ñi nga ko war a loolu mooy essentiel donc on se donne man damay ñëwaat incha allah dans GP Grand Plateau euh, daañu jël sunu correspondant ak reporter yu nekk un peu partout à travers le Sénégal ñu ànd ak yéen ci veille électorale bi et demain pour la couverture dara du leen ump ci couverture bi incha allah avec le groupe des médias Sen TV Zik FM Tribune Actunet ak ñi ñu koy àndal yëpp jaa ngeen jëf